you. asalaamaaleykum sama mbokku téléspectateur ah macha allah soir ngeen seen émission happy birthday ngeen ànd ci Sister Fally ak wa TMP avance donc tay ñu ngi fi anniversaire ku ñu wooyee Pascal ah ñu ngi fii Guédiawaye fu ñu wooyee lambay donc gaay dañuy daal xol xool Pascal yan surprise dañuy réservé ak lan moy spectacle Pascal ayca ñu dem. expert ah yéen a ngi gis nit dugg par benn benn benn ñu daal di leen bàyyi rek ngeen di xool ndànk-ndànk nu ambiance bi nar a demee fii ci kanam tuuti rek ñu leen di bàyyi ñu nag suñuy caméraman après ci kanam ñu dugg daal di dugg ci biir rek xool ambiance bi nan la fa demee merci. Euh, ñoo ngi fii ci biir ci biir euh, ambiance bi yéen a ngi koy gisee comme ni ngeen ko gisee maa ngi taxaw ak naa def. maa ngi fi. yaa si jàmm. maa si jàmm waaw. noo tudd. maa ngi tudd Lucien Mbende li may woowee Zos. lu waral sa teewaay tey fii. ah sama doomu nday ku bokk ci ma ki sës ci ma ma rek moo aye tey waaw ah, tey suñu bës la ah dama koy ñaanal gudd fan rek ak tekki bu bëri bu bëri waaw xam moom dafa mën a maye xaalis moom maye xaalis rek waaw ma dégg ko sama lépp nag waaw sama doomu ndey la waaw. ok merci beaucoup xam naa ok daal ñu daal di ñëw fii rek na nga def. waaw ça va baax na. si jàmm. naa est noo tudd. ça va noo tudd. ça va si jàmm. Euh, naa maa ngi fi. gannaaw yow star nga de. ah non même pas maa ngi seen ginnaaw. ah macha allah damaa ñëw gis sama tool bi macha allah nice ba bëgg a dee noo tudd. man maa ngi tudd Charles Samson mais Sami lañ may wooyee. Ah, Samuel. Samy, non, Samy, Samy tout court. Samy. Ah, Samso. Ah, ok, sa nice na macha allah euh, donc lu waral ni euh, sa teewaay fii tey. waaw sama teewaay fii li ko waral mooy sama grand frère sama xarit sama lépp mooy anniversaire tey moo tax ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ñëwal ko tey muy Pascal pasu le nom voilà. ah d'accord looloo waral sa teewaay. waa looloo waral sama teewaay en plus mu jël bisam bi pare ne ma ko. wa motax ñu bay lepp liy def and ak gaay yëpp xarit yi ñëpp ñew ñewal ko ci bisam quoi ndax ku nekk sa bis nga am. mom moom dëgg la way sañ sa nga daal. ah merci beaucoup comme def ni yow rek. ok ah, merci beaucoup ah vraiment li nga wax rafet na torop torop. Masha'Allah, allah kon duma len ko waxe yeena ko a do sen bop bopp ah, gis ngeen anniversaire bi macha allah yaangi ni taxaw donc grand na def. ma nga fi. yaangi ci si ma ci ngi ba no tuddu man ma ngi tuddu Lucien ni ñu may woowee Zeus. Aziz lu war a tey sa teewaay fii. ah tey sama teewaay sama doomu nday ku bokk ci man ki sës ci man waaw mën naa ne sama deret quoi ndaxte ba ñu nee ba dee xale ba léegi ñu ñaa ñoo ànd ñoo yorandoo ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp lépp laal mën naa ko wax. lu yenn lu fanaan ci man yendu na ci moom moom tamit lu yendu ci moom fanaan ci man quoi noonu la fa demee sama lépp la sama couleur waaw mun ma wax bu ma waxee ci moom damay damay damay damay juum quoi mais yàlla xam na ni moom fu féetoo ci man. te man tey xam naa fu ma féetoo ci moom waaw moom lu borom baax la te xam naa dina am lu baax tamit waaw mi ngi noonu lépp lépp lu muy lu ma yéene rek yéene naa lu ko raw waaw bés bi yaa leen ko fekkee ay déwén bari bari bëri bëri bëri bëri waaw loolu laay ñaan yàlla mu def si jàmm ñu dund ñu dund ko ak jàmm fekk ko ay déwén yu bëri waaw moom mu dund lu bëri bëri waaw 2019 ans sans ordonnance loolu rek laa koy ñaanal jàmm ci moom ak xewal gu bëri ci projet am waaw big ok merci beaucoup Zez kontaan naa ci yow ah. waaw nee nañ bés bu tuuti borom lay toll lool de dungu ne du teew nuyu na taal xew baa ngi nii Pascal naa la. waaw fay naa la. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax. li nga sañse dafa rafet. waaw merci bés bee ko waral rek. waa si sa ori gis nga Pascal lu mu sañse yow Pascal li mu sañse dafa rafet man lenn rek laa koy laate Pascal ku la ñawal ah non fii kan moo fi jaar moom bu ma fi nekkee di wax fii laay fanaan ndax ki ma ñawal moom nee na ma ma denc tur bi bu ma ko joxee waaw nee naa denc tur bu ma ko joxee. mais est-ce nga ne ça te va. waaw ça me va très bien waaw sama couture la xam naa ne mën na ko waaw moo tax ma dem ci moom daal. donc Pascal euh, lu toll ni sa anniversaire donc euh, nga gis beaucoup de monde ñëpp

Pascal est-ce que xam nga ne bés sa tuut borom lay tolloo. ah man kay xam naa ne sama bés moom <laughs> toll raw na ma sa bii moom raw na ma moom. <laughs> ba nga nit ñi loo santé si sa biir xool. ah cofeel rek laa sentir cofeel waaw cofeel rek laa santir sentir ma leen la dul cofeel pour di leen wax ne leen lii première solo la rek. waaw am na deuxième ba troisième. Ah. waaw. waa lii du yomb Fely yaa ngi dégg lu Pascal di wax est-ce que Pascal lan nga ñu naraat ak yan surprise ngeen dencal tamit loolu lañ bëgg a xam ñun ñun fu mu toll nii compagnie yu bëgg a raay jàpp si nag. waaw bu ma waxee lépp rek surprise dootul amati. damay dé ci affaire bi ba ci kanam touti rek yeen ngeen gissal sen bop moy dakh waw di ngeen dugg ci bi di ngeen giss ambiance yi di ngeen giss nit ñi marraine bi dina ñew ci kanam touti dina ñew parrain ba nek ni amna fi ay invité comme Ognel Irène waw ak Joyce baby dina ñew ñom ñew fi ñu way ak def nice dina ñew fi ci kanam tuuti incha allah. Allez.

comme tamit fekk fi ay xale yu jigéen ni mel ni yéen xam nga ñëw ci soirée bi neexal ko après dem ñibbi mais bëgg nañu bu ñëwee nii lépp jaar si yoon xam nga mu bañ a am ay bruit ñëpp dans lépp dans la joie daal xam nga moo tax ñu ñëw pour représenté ko moom tamit ñëpp xam ni ah kii xool bu rafet bu muy wone de am na ay nit yi ñëw wuy si ko quoi parce que nit ki bisam rek la am kon foog ñu ñëw teewal ko bëggal ko tamit quoi loolu moo waral samay tàng tey. a ah, sa wax rafet na sama góor sa wax rafet na bu baax Pascal moom ngi bokk groupe courage ñëpp xam ko ci géejawaay li nga def nii rafet na trop ñu ngi leen di a baax a baax a baax. kontaan ba ñaari xale yi rafet jekk kaar macha allah xaw ma ku leen solo nag mais su ma ko gisee naa ko kon big up ñu ngi dem def xappi ci biir quoi. noo gisee anniversaire Pascal bi. ah fële xale jigéen ñi def nañu sañse yaa ngi gis xale góor yi macha allah ah lii moom xëy na neex moom mu ngi mel ni fu mu toll nii daal affaire yi daal xaw naa doy waar lii moom neex na def fële. xaw ma na neex macha allah gis nga sañse yi doy na man moom fu mu toll nii affaire baa ngi bëgg a xeeñ nag waa lii nu muy demee après ci kanam nag. na neex rek nara la neex donc dama lay bàyyi après nga daal di jël marraine bi ñëwagul donc euh, voilà euh, ak yeneen invité yii di ñëw parce que anniversaire bi naru yomb ah. ah anniversaire bi du yomb marraine parrain ah ñu ne déetuwaay invité yi nag macha allah nañu xaabas kanam rek xaaraale marraine bi ak ambiance bi ni muy demee ci kanam. d' accord kon ba ci kanam. waaw ok yow fii lii ñu def noonu ba ci kanam. d' accord nañ daje ci biir. et eh, man jëlal ma kii lu mu sañse ah nee na lii mooy deuxième sañse de troisième bi ñëwagul Pascal macha allah ah Pascal yombaloo sa bës bi ah xoolal lii rek.

fii dina bloqué man maa lay wax loolu xaw ma xam dina leen fi fekk am déet donc ba léegi ñu ngi ci biir ñu ngi ci anniversaire u Pascal euh, soxna si naa def. maa ngi fi rek soxna si di la nuyu. noo tudd. maa ngi tudd Joyce Baby. ah d'accord kon yooyu yaay Joyce Baby mooy dégg fii Guédiawaye ñu ne mooy lëmbe Guédiawaye artiste bi nga xam ne macha allah dafa talentueux. waaw loolu la yàlla dogal <laughs> maa ngi nii. ah yaa nekk nii. waaw man la. mais Joyce Baby da ngaa sañse Merci beaucoup, yaa ma gën a sañse maa ngi sa ginnaaw. ah gis nga ko tu es très mignon. merci beaucoup à toi aussi. donc dam euh, Joss Baby lu toll nii euh, birthday euh, Pascal donc voilà Pascal woo la mënoon nga ne non aw ma temps mais defoo ko da nga ñëw gunge Pascal ci bësam bi donc Pascal comment ça fait lu toll nii birthday Pascal nga bàyyi sa yite yëpp ñëw fekk si oui c'est Pascal. waaw maa ngi nuyu ñëpp di remercier initiative bi Pascal nag sama xarit la tu vois euh, Nek na ko xamante luma lu ma fay ñew. Danaka on est des frères et sœurs Ko xamante dama ko sopp lool ndaxte ku am yité la ku bëgg nit donc nit yoy non so leen amé si yow loo mënti jàpp da nga koy bàyyi ndaxte ñoom it da ngay am ay événement et tout dañ ci japp di ñew di la assister même sax lu mu xat-xat-xat bu ñu def une heure de temps sax daf ñu koy jaral parce que mom moo jar motax voilà loolu kese la mu doon sama frère bo xamné daf may soutenir donc c'était c'était à mon tour de de de lui rendre ça quoi loolu kese la woon moo tax sama teewaay di rafetlu nak yow yaangi ni dali daal di jongo ba dee ak siste bi <laughs> voilà mu école, lu neex d'Al. voilà d'accord li nga war rafet na macha allah damay bàyyi sama sister Odile rek mu daal la poser quelques questions. moom USB bi maa xeeboo li nga sañse. <laughs> waaw topp seen ginnaaw rek ma chérie. <laughs> macha allah euh, comme ni nga ko waxee rek ñëwal nga Pascal ñu lay laajte lan nga koy ñaanal ci bésam bu tey bii nii. waaw di ko ñaanal nag lépp lu muy séntu si bés bi ak au delà de bés bi sax mu am ko te mu jik ko ndax xale la mais dafa am jom. te xale moom bu amee jom rek ñaanal ko rek parce que cat moom dafa digul sax bant asama laa nit te ñun comme li ma wax kii rek nekk nañ koo xamante ne même lu ñu xat xat xat dañ koy jaayante pour ñëwal ko tu vois parce que c'est entre nous après tout artiste là c'est vrai mais dama am samay nit quand même di def lépp possible pour ñëw teewal leen seen bis yi nga xamante moo gën a important surtout muy anniversaire am di ko ñaanal di ko souhaiter un joyeux anniversaire encore une fois mu dund ba dund sàppi ko voilà. merci sis Dioy euh, léegi maa bëgg nga won li nga xam ne moom lañ la xamee li làqatu ci ginnaaw. Euh, une belle dame waaw nga war ñu sa voix d'ange yaa ma gën xam rek defal ñu lu ndaw rek mosal ñu daal après li ci kanam rawli li bët waaw di may ñi nga xamantene nak nag dañuy bëgganteeg seen waaye te seen parents yi duñ nangu di lancer waale un message di wax parents yi ñu bàyyi seen doom yi ñi ñuy bëgganteel parce que bu dara seen doom yi ay mag lañ waaye affaire de ki ñeño la ki ngago bi la amatul sens 21e siècle lañ nek ah sa doom ku mu bëgg jappalé ko aussi defe naa ne loolu mooy mooy avantage daal voilà bu ko defee ñu dem ci moom laa lool j'espère que yéen ñëpp xam ngeen son bi sama première single mu ngi génn le 26 octobre 2016 ñu jógee ci loolu nag dem ci gàddaay waaw dama leen ñamal rek def leen moom la law su ma ko gisul du ma nekk tere ma ko moom mooy ki ma bëgg fii mu toll ci man de gis mooy dëgg su ma ko mayul na ko fekki fu mu man de ma bëgg sama waay te dégg ndigal bi yaay askan yi tax ñu bëgg ñu feewale te lii du wéy every day ma dëkk di croy suñu nekkin nu mu mel damay xëy di dëggu nag kaabu ne moom nee na waa ji neexu ko ba léegi si sa audit ñoo gisandoo invité yi ya, macha allah xale góor yi mignon nañ macha allah def nañ sañse Pascal naru jàmm. ah waaw vraiment naru yomb de Pascal rek. loolu ngay fay moom loolu moo sa frais donc gaa yaa ngi ñëw dañuy xaar invité du ñëw par benn benn rek ñu daal di leen jël marraine bi nag la ñuy xaar sànq ba léegi gisaguñ ko. ah, ah waaw gis nga de. dégg maa ngi dëkk Mbao ñoo ngi bu ñu nekkee xale Géejawaay Géejawaay laa juddoo fa laa yaroo fa mais depuis que mu invité ma kii ma damay jóge mbaaw ñëw ba fii pour def sama présence parce que bésu suñu bés la ñun ñëpp mais sama présence fekkee bés bi tey. ah ok merci beaucoup Alphonse nga war naa gis merci kontaan naa ci yow ba léegi ñu ngi nii toog ah gannaaw naa def. maa ngi noo tudd. Oscar Mendy. waaw en sama ma ko fekk ma def ma ma def ko adversaire quoi parce que ma def ma def adversaire fii abu bëse yi mais yàlla nga yëpp fekk at góor góor da ngay ñaan quoi mais yàlla si jàmm baax. ok merci beaucoup li ngeen wax nice na. donc Machallah, nous ñoo ko gisandoo suñu bopp gis ngeen buzz et Pascal bi ah macha allah gis invité yi gis ngeen sañse yi ah, Pascal da ñëpp bàyyi nañ seen occupation ñoo wuy si ko parce que moom moo mérité donc voilà ma ànd ak sama sister Odile euh, je vous donne rendez-vous à la prochaine ci yeneen une émission ak euh, yeneen une femme, ak yeneen i spectacle donc voilà peace and à vous je vous aime ciao